mbare abidje iba là où nous sommes d'après la prestation de serment et de passation de service focus vers l'émergence et le développement du pays focus il faut que nous soyons focus il faut que ñu xam fi ñu jëm xam li ñu bëgg xam niñ koy tegee xam ak ñan lañ koy tegal Bassirou Diomaye Faye ñu ne monsieur le président Ousmane Sonko premier ministre man ñaar rek a ma intéressé mooy affaire étrangère Mimi Touré bu fa demee si je pense bien dàmbooj bu ñëwee éducation ndax mooy sama problème mais balaa loolu ñu ñëw ci démb cérémonie bi seetaan naa lépp xool naa lépp mais des fois da ngay préférer noppi bàyyi mu avancé régime bi fi passé fi ñu yóbbu ñii duñ ñu fa yóbbu parce que mënul nekk bu benn ñu jiitee problème day am mais bu équipe jiitee problème du mën a am mënul nekk man gëw ma ne problème am ci gouvernance bi gëw ma ko quoi ma ko xaw xëy na yéen ngeen gëm ko mais man gëw ma ko gouvernance bi ñu war commencé gouvernance locale bi mooy ñun fu ñu jëm ak gouvernement bi ñun ñu doon xeex projet bi liñ ci liir yëpp est-ce que c'est réalisable oui ou non après les audits parce que foog audit am ku leen ne gouvernement bi mën na départ ni job job job nii déedéet pour l'instant ñoom wàññi dund bi dong lu ñu mën te loolu décret moo koy def wàññi dund bi la ñu mën. ak ku ñu mënti fal poste boo mënti dem ñoom biram ak ñoom ñëpp ci yem foog ñu accélérer auditer mooy ku nekk fi nga nekk foog nga auditer ko ndax dafa am lu ñu naan siru président xëy na yéen doo leen xool mais man je suis bien. dem leen ci vidéo yi démb monsieur le président Bassirou Diomaye Faye bi mu démé tak chaîne bi ba ñëw moment bi mu ab santé na ba xappa-xappal ñëwaat taf-tafal bëti toogaat concentré wu laa ne allah akbar gaay dugg nañ ko parce que chaîne bobu da am yu bari yu muy représenter donc système anti système je ne dis pas Sonko de mais basirou jomay fay même bu dé 24 heures soyez le bienvenu dans la grande loge maçonnique parce que la république est maçonnique

dem ko installé Bassirou ku ku gunga Macky c'est l'état non mais ñan ñoy état au juste ñan ñoy état kon état de di soog lo xam ken kenn mënu ko bouger kenn mënu bouger état état ak nation bokul ñun peuple bi ñun nation te ñun la nation ñun ñoo wara développer li gouvernement soxla pas li état soxla parce que état day nekk té équilibré dëkk bi au cas où siiru président démb la ko dugg bi mu waatee ba pare toog noonu tàq ca xam la ko suro bi branché cib gars yi dafa lu ñu lay jam dafa am lu ñu lay dugal loo xam ne leneen la ndax baatin yàlla jox ko jullit de jox ko catholique jox ko ñii xam nga yàlla ko mu jox baatin banni adam la yàlla jox baatin banni adam dem leen xoolaat samay image de gars yi man ni way jang ak ni ngay ni jang bokul xam nga yéen nga ngi nekk ah, li la def dedet man ma nga ci yalla bu ko siru bi dug yalla bu mu nek president du ism yalla bu ko gars dug mais si même bo dul franc-maçon gars buñ la brancher da ngay ñew donc bienvenue dans la grande loge soyez le bienvenu soyez le bienvenu ñom ñep erreur yi ñu commettre yëpp ça va se régler après parce qu'à partir de Bassirou Diomaye Faye lu a beaucoup de ko qui ci république pour bés bu faire des a def prestation de service mu def ko selon moom sa foi selon sa religion selon sa croyance parce que nous sommes dans une république maçonnique donc laïque c'est que nous foog ñu nangu ko d'abord balaa ñu am départ moo lu ci sëriñ si bokkul ak ñëpp c'est bien beau nañ

mais tey Ousmane Sonko premier ministre nga foog ne ko mel ne Amy Ndiaye Gniby wala Coura Macky wala ay Farba Ngom war nañu Ousmane Sonko ñëw war a def déclaration de politique générale am au mois d' octobre wala novembre ay Farba war a taxaw ci perchoir bi di wax ak Ousmane Sonko négatif il ne le mérite pas daam ñoo xam ne Ousmane j'aime trop le combat j'aime trop les débats d'idées mais Sénégal foog ñu nangu dara dafa am ñoo xam ne mënuñu si dara fu mu ni nii mënuñu si dara assemblée bi assemblée bi mérité wuñu jàkkaarloo Ousmane sunko di wax quoi di jokkalanteeg moom mu nekk premier ministre ay kuréel ak yéeg di taasu fii Amy Ndiaye ñibbi ak yi mu fi def saagante ndey femmes yooyu nga xam ne xamuñu sax luy assemblée ñun suñu débutants yi au lieu ay député on a que des ñi nga xam comprendre luñ dara assemblée toog na yëng-yëngaaral déedéet Ousmane Sonko ne mérite pas d'être devant cette assemblée nationale là Ousmane Sonko même ne mérite pas même taxaw Amadou Mame Diop toog ni yëng-yëngaaral Ousmane Sonko di wax ci non non non Amadou Mame Diop fa nekk kilifa Ousmane Sonko ñëw di wax négatif négatif tout est à refaire ay ñoom Abdou Mbow ak ñëpp fa xas tout est à refaire non non non Ousmane Sonko premier ministre moom beaucoup de choses qui doivent changer parce que man du ma may ay espèce humaine nous avons Ousmane Sonko taxaw ci bi may lu neex ñu crise crise sociale crise d'anxiété non loolu une nouvelle politique c'est-à-dire le développement ban genre développement ñun Sénégal ñun nous lañ gars yi on a vécu vingt quatre ans de merde dans la dépression ñëpp doon ay sadik ba mooy Sénégal ñëpp ay sadik lañ il est temps qu'on apaise l'espace politique Daouda Diallo yëpp gars yi il est temps qu'on apaise tout ñu jël xaalis yi nag amnistie bi ma wax leen lu leer yéen ñi criminels yi xam nga man sama objectif lan la woon ne ñu fexe ba Bassirou Diomaye Faye waat laajal ñi may woo ñëpp ne naa leen na waat ba pare rek après on tout rek na waat ba pare. amnistie rapport Covid yeeg cour des comptes hey mer na fi Ngom Keïta wala Falidou Keïta gars yi tous les dossiers seront sur la table Ousmane Sonko kenn bàyyi ko pour amnistie Ousmane Sonko liberté provisoire lañ ko bàyyee tous les dossiers seront sur la table. lépp loo xam ne nag Sonko la ko nit yi doon saaga loolu moom il s'en fout yoonam nekku si Ousmane Sonko toppal kenn mais suñu justice réew gars yi ma ñàkk sama nday xaalis xaalis bi dina génn dërëm par dërëm ñaar dërëm par ñaar dërëm parce que gars yi dañu dépouiller trésor public nouveau gouvernement duñ ci wax mais le trésor public fi mu waroon nekk ak loi budget bi ñu voté ñu nekk mois de mars trésor public di këjëng këjëng ñi xaar gaaw yónni Mimi Touré gaaw à l'étranger mu daw wuti ji ay financement pour ñu xojaat ñu du fi amee suñu alal day génn de ku rey nit yaa xam man topp ma ku rey nit topp ma ku violé topp ma ku dambaate topp ma kenn mais xaalisu réew mi laa leen ne alalu réew mi alalu réew mi gars yi day génn de politiciens yi nag du mu leen nëbb ñu bëri dinañ ci profité nekk ay opposants parce que ñu bëri commencé nañ ma woo non boo xamoon eh je m'en fous si su ma xamoon xam nga man lu ma xam

les meilleurs hommes de l'éducation nationale njaga ñaaw lañ dëkk ñuy jifeer ñoom Joseph Pierre Ndiaye ñoom Alphonse Diop les meilleurs hommes de l'administration laa la wax ñi nga xam depuis Abdou Diouf ñu ngi ministère nekk directeur de cabinet kenn mënu leen laal Mary Teuw Niane xam na lu may wax félicitations mon père bi may jooy fi Mary Teuw Niane fa nga jege booy yi fa nga jege booy yi boobu élection amul woon Sonko bokkul woon Diomaye bokkul woon boobu ñu ngi woon mois de septembre bi ma naan les intellectuels Père Mary wu ñaan foog mu ñëw foog mu moo tax bi nga nekkee candidat ñu éliminé la ma ne alhamdulilah Père Mary Teuw Niane foog mu bokk. ndax man niveau sénégalais ku ci nekk paa yi nga gis ku ci nekk sa bopp xam naa ko ku ci nekk dama la xam maîtriser la am na beneen père bu dee Cheikh Birame Sarr moom it dina ñëw c'est le meilleur sénégalais au monde troisième bi c'est une ñoom ñëpp Sonko foog ñu ñëw ñooñu ñooy les vrais hommes te ñun bi fi Macky Sall ñëwee lañ dem seen yoon zaro na fi ngam kay tàgge Macky Sall bi mu ñëwee la ñu gedd état ay ñoom pas Alphonse Diop ñu ngi dund waa ñaga ñaaw les meilleurs directeurs de cabinet des ministères de l' éducation nationale lan moo leen fa jëlee politique parce que ñoom du ñu politique poste yi nekkatuñ ci ay politique foog ñu taxawu gaay liggéey diaspora diaspora tànnu député bi tànnu député bi bi ba buñ ko défé fëgg tànnu député bi sen nationalité yi gars yi mu génn non gaay nak duma du ma nëbbu PDS ñu bëri sax dañ leen di tejj ñu bëri ci PDS dañ leen di tejj man mënuma ma wax lepp parce que xam nga rek nguur nguur la mais dossier yi na fi ngoom kaytaa gars bu <laughs> bu ministère de la justice procureur Aliou Ndao delluwaat fa mu war dellu ah amo ah, frère <laughs> saa waay dëkk bi dina toj de xamu leen sax luy daw nii dëkk bi dina toj ngay <laughs> di ngeen fi gis ay sàcc yoo xam ne dinañ jël gaaw xaalis dem suruxal ko si suuf remboursé kenn du wax lépp am na ñoo xam dinañ signalé wu dugal ay milliards ci état xool nit nu mu yoree milliards. ba tax ma Sall demal boppam am ñu mu fi bàyyi il l'a fait exprès foog xaalis bi kii pour ñun nag ak suñu diaspora yéen laay waxal de député il sera carrément sénégalais même buy liggéeyee fii diaspora bu Sénégal la commission des lois bu Sénégal a assemblée nationale nous bëgg suñu député bi diaspora dem mais ne diaspora amuñu la diaspora carte de séjour diaspora sais ce que je métti dañuy d'accordul tubaab li mu wax ni ñun ay sans papier nous, ñu nekk suñu dëkk. nekk le foutre-tout de l'Afrique ma gis ñuy traité Tahirou Sarr lu nekk te lu Tahirou Sarr wax fa la décomplexer. il faut il nous faut des visas waaye léegi man Sénégal man. je prône pour que français bi fiy jóge ñëw dafa war am tey visa tourisme ñu koy fay loolu moom jeune ne badine pas là-dessus foog ngeen fay visa yi français foog mu am visa français yi fay ñëw dëkk si toog tabax naaj yëpp maa bañ ñun amuñu ko fii suñu yaay yëpp suñu pap yi fii ay baayu quatre-vingt-dix-neuf ans ngay am fii yow mi étranger doo mosa moom sa kër français moom moom sa kër fii buñ la fi suul juddoo woo fi juddoo woo France laa la wax même nga am nationalité buñ la suule suuf siñ la sul dañ koy loué say wajur dañuy fay chaque un an dañuy fay lu cher motax africain yeb di préférer ñu leen bogo bogo andi ci caisse Afrique de ñu bari sen dom yaangi fi mais lan motax ñu leen sul fofu ba suuf biñ la sul da koy fay parce que dëkkoo fa juddo wo fa même bo amé seen nationalité juddo fi mo am fi France pour lan ñun nangu ñuko nangu Sénégal pour lan français da fay dé ñu défal ko yeb commémoration sul ko ñu am ñu droit fi est ce que di ngeen mossa gis un sénégalais nationalité sénégalaise ñëw di liggéey gouvernement France du ma sa am. kon nag Ousmane Sonko sa palais boobu bi may dugg palais man nuyu naa Xaddafi biir palais nuyu naa Nelson Mandela biir palais nuyu naa Mohamed Sis biir palais. ak kan yeneen président congolais boobu woon waaye président yi rafetoon yooyu te mu daan sant nuyu naa ko biir palais palais présidentiel bu akay présidentiel doon am taw Abdou Diouf président président yi bu ñu ñëw dañ daan teeru biir pare lañ daan dem si l'un des rares des jeunes bu ñoom tonno Amath Dansokho ñoom a bëgg a bëgg woon yóbbaale nuyu naa président yi bëri biir palais palais boobu nag mun ñu cent 1960 les mêmes têtes ñoo fay job déedéet il est temps que nga jël jeunesse bi ñu former leen xam nga man lan lay bañ toujours y a les mêmes da ngay gis pas bu retraité ba xob bi daas ñenn ñi xoolal palais la ñuy deewee ak 85 ans ko fan maintenant et la jeunesse. qui a fait ses études. Et cette jeunesse-là, on ne doit pas les former. Est-ce que nous avons pas une parler de retraite Am 60 ans, nous avons jubilé avec ben jeune. Nous sommes qui bureau, nous formons un an, deux ans, nous avons pour le Si, et on va le faire. Préfet, gouverneur, nous sommes qui Éducation, nous sommes qui bari. Te yen préfet, gouverneur, yen la yokhal. Len gour dan nangolo. Bolen ko bagné, dimeli ngour. maanaam waruñu leen def ay chiffon yéen ñi commissaire di commandé troupe yi leen nguur daan nanguloo boo leen ko bañee dimbali nguur yow mi général de gendarmerie li la nguur daan nanguloo bunkeriser Dakar boo leen ko bañee dimbali nguur boo leen ko nangoo sànq nguur yéen tam nguur boo leen foggee ne loolooy defar réew bunkeriser Dakar def fépp ay gendarmerie mu ngi noonu yoonu palais de la république dañ ko bloqué teg ko fan te muy suñu palais ñun sénégalais yi ñoo koy fay li fay nekk si courant ak ndox yëpp ñoo ko fay ki fa dugg ñoo ko fa duggal su ñëpp mbindaan la mais foofu yëpp on la bloqué ne leen seen mbindaan na leen gën Sénégal kese la loolu am yooy yëpp foog ñu changé ko pour nekkaat ci beneen genre état gis gis gis nga ma rupture dama gis ñu ñëwaat ci temps wu Abdou Diouf ñëw pale photo woog garde rouge dem visite dem yóbbu élèves yi pare ñu def ay visite bind visite kii visite sortie pédagogique man yooyu laa gëm mais pas bunkériser le pays def ko comme un pays de ko te Ousmane Sonko mi ma gis moom dignité am uraawam dina ko may mu wàññi bunkerisation du pays foog ñu wàññi bunkerisation bi ministre yu ñëw nag ministre yu ñëw kii gère éducation nga xam ne éducation sans formation égale à zéro boo diplômé Afrique boo ñëwee Europe nga xam ne t'as pas de métier Tu es un sous-homme. Tu n'as pas de métier. Tes diplômes ne te servent à rien. Bac du métier ay bac plus du métier le métier à partir du BFM Dambodj ñeme un casse lool mais ba tey dégguma formation à partir du BFM élèves comment war nañ leen faire tasaare nag pour de bon a fait électricité Qui électricité fait le bâtiment le bâtiment kii defi banque finance la banque finance qui même qui a fait restauration à partir du BFM war na defi bac restauration coiffure bac coiffure c'est que faut ñu wuti këyit yi gis nga Sénégal faut ñu jàngal xale yi jàngal xale yi jaral leen ngeen fi Europe des professionnel y ngi fi am na ñoo ils ont sacrifié toute leur vie en Europe Nek ci chantier di jàngale bu leg ay formateur lañ ay ingénieur ñaata jeune sénégalais ñoo nek tay SNCF yoré sen yoré erreur France il que que dawal combien de jeunes sénégalais ñoy liggéey SNCF combien de jeunes sénégalais sont nek RATP gars faut que ñu développer dëkk bi développement ça démarre par l'éducation éducation nationale Moi, wara former les hommes qui doivent construire le Sénégal ça ça revient à l'éducation nationale ça ne revient pas à l'armée nationale parce que armée quand fay dem day fait nga am 18 ans L'éducation, c'est à partir de 6 ans nañu wàññi matière yi def si xelu xale yi métier ngir yàlla def leen si xelu xale yi métier. gis nga xam nga lu ma jaaxal gis nga même la logistique la port gis nga logistique mooy docker yi ngeen di wax yéen journée 3000 lañ leen di fay. milliards yi génn port mbaa xam nga ne tey port antan na tey heure cent francs wala heure 1000 francs barki sëñ Bamba billaahi walaay talaay billahi wallahi taala ñun dañu def xoola ay dañu bind c'est que man nekkuma ak ay booy yoo xam ne binduñu déedéet ñun dañu bind teg port mën na la fay heure mille cinq cent or port docker tey war na tey jomm tey di fayeeku tey senegal trois mille francs tey journée maa bañ maa bañ je refuse maa bañ tey métier yooyu tey foog mu dox Ousmane Sonko tey boo changé tey décor tey palais bi jël tey sëru rabal yi jox ko tapissier ñu créé ci ay matelas ay fauteuils yu too ay yëpp lu bees tout marche tailleur intendance jëlal ay tailleur duggal leen intendance tenue militaire yi li ñuy jënd tenue militaire fi c'est ex c'est trop té xol potentiel boobu yëpp ngi Sénégal mais d'œuvre bépp ngi Sénégal ba paré man motax bu ma dañuy créer ay emploi té emploi nek sen kanam di leen xol ñom ñukay koy ñëw di jox tubab bi ba dalu militaire yi fi lañ koy jëndé diko def si conteneur yi muy ñëw gëw mako à partir du BFM war nañ commencé tek xalé ci axe former des cordonniers professionnels wat usine bata bu nek yoonu Sococim bi boy génn Rufisque à droite. yarax usine yi fa teccep ñu rénover ko kër yi fa nek ñu toj leen parce que ce n'était pas vendable zone industrielle société bu fa nekkon kër da ngay ñak dañ koy tok génnee la fa dem wutal la fa dekk mais pas fofu zone industrielle la. emploi fi mais ci kaw ñu fexé am made in Senegal, te made in Senegal, duo bi mën ko def xamna lu may wax. Made in Sénégal ce duo là va le faire et peut le faire ñun ñëpp bu ñu man métier gëm diplôme bac ngir bac arabe Tunisie ma Égypte c'est bien beau mais tu n'apportes absolument rien au pays encore une fois tu n'apportes rien au pays dara andi wo ko ci dëkk bi am na man sama boy bi dafa souf. dem Matam ni souf bi Dima décortiquer souf bi Dima wax souf bi Pulang geng ngay ñibisi wat waat mu ne ma ye eh, grand senegal fi doom dara ñibisi wat ni na ko xam suuf suuf lay tey suuf wax la suuf bi moy kan suuf bi diw moy mamam suuf bi li lay produire si la ma wax ba ni suuf bobu boo boo ko bëgg défarat suufu noor bi ni jor gi da ngay ñew suufu matam ngay dem tibbu suuf ñew défarat ko engrais jaru sax jaar fenn da ngay ñew rek di soti ay côté Gossas Kaolack fofu yëp mën nañ ko wat défarat environnement bi défarat suuf si ci Kaolack suuf bi nek matam limu contenir mo bari waa léegi ñooñu ñëpp dañ fiy nekk foog ñu wool les Indes ñu ñëw di créer Inde yaay ñëw créer noix de cajou bi boo yàngee lépp pare pour lépp mais xool noix de cajou bi même noix de cajou Inde yaa koy gérer gars yi jàngi leen métier bàyyi leen ma seen bac yi la jeunesse. ministère de la jeunesse Ousmane Sonko ngir yàlla école de métier yi Ablaye Wade ubbi woon te mu takkaloon ak case des tout petits yi gars yi lekk nañ xaalis bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bu gosaas matériel yi bees saa fa nekkoon. matériel yoy xol gaay duñ ko mujjé jaay jaay ay matériel yu jar ay 800 millions la fa Abdoulaye Wade dugaloon fee ngay taxaw di dagg say bant di harmoniser plancher muy ñew jaay nañ lepp ñan ñoko jaay kèn xam il faut que ñu défarat Sénégal pour ñu défarat ko ci métier lay commencé pour ñu défarat defaraat ko ci dévouement personnel lay commencé éducation xam nga ñan ñoko ko réglé woon y avait une ONG privée bu monsieur Touré dit wu ñoo ñoo s'adique sadik éducation parce que inspecteurs yi dañ doon jaar chaque quinze jours ñu jaar man EPS chaque quinze jours y avait monsieur Birame Faye qui venait contrôle contrôle ce qui fait que es obligé d'être carré tu es obligé d'être sur la ligne man loolu laa gëm mais loolu kan que ko génnee Macky Sall la ñëw def leen ñoom ñëpp ay politiciens Passé yi ministre bu ma gis nga politique ministre man bu ma dajal ci terrain politique wala nga avez di base politique ay je base politique on va vous emmerder monsieur le premier ministre t'es devenu maire ah, il est temps que vous suñu nga confiance délégué suñu kenn mu à moins que Cheikh Tidiane président conseil régional pour ñu libérer liggéey parce que t'as du pain sur la planche Sénégal li ñu sumb pour mu tak carrément foog nawet bi passé parce que fii ak nawet bi audit lañu ñu def préparer ñu ñuy songe nawet bi gagner nawet bi. à partir de septembre nous bu ñu changé assemblée nationale commencé wa teg jargon yi Ousmane Sonko def politique générale ñu xam ban vision lañu am par rapport à la politique générale du nouveau gouvernement su boobaa ku nekk xam fi nga jëm. lenn la leen ñaan on reste au calme gars faut que nous dal bañ top manipulation yi wax ju bëri ji ak teesante bi man nekatuma ci loolu maa ci projet de société comment faire pour développer le pays ak fan la ñu jëm ak bi félicitations encore une fois monsieur le président son excellence Bassirou Diomaye Faye félicitations à son premier ministre monsieur Ousmane Sonko félicitations à tous les membres du gouvernement El Malik Ndiaye que la gisul ci liste bi ndax El Malik mom loko ko waxal mom moy l'homme de dialogue té ni mu maîtriser Dakar Ousmane Sonko maîtrisé au Dakar kenn maîtrisé au Dakar Abbas Fall El Ndiaye c'est des éléments essentiels C'est des éléments essentiels du gouvernement nous, bi ndax ñoom ñëpp la ñuy waxal ñëpp la ñuy jox nopp ñëpp la ñuy déglu xeebuñu kenn. Birame Souleye le chef je te laisse en paix maintenant gérer suñu réew bul dof dina jàpp gay nga xam nañ ko fi nga nekkoon nekk fa parti ba lu nar a teguwul ci yoon na ngeen daan def bureau politique pas de régler vos problèmes de parti au palais les problèmes de parti ne vont pas se régler au dem leen seen bureau politique ni ngeen daan waxante ngeen waxante ko fa dëgg yi tegu fa pour ngeen jëm ci kanam au cas où nag ngeen bëgg andi xaaj ak seen problème day am seen biir yéen da ngeen am yéen am ñi ngeen àndaale seen biir kon yéen yéen la ñi ngeen àndaale yéen ñëpp la kon chaque fois rek ñaari réunion mooy am yéen seen décision ak yéen ñëpp seen décision code yéen seen décision ak yéen ñëpp seen décision basumo basumo mbare su ko non ko abidje iba faamaale rax day tas kër koo sa njaboot mu diviser leen nafiyo nafiyo xooy